gisandoo tey nag euh, ñu jàkkaarloog Thierno Moule Sow le xalif général des Guinées le médecin traditionnel des Guinées the of the ñu nekk fii nag ci fi nga xam ni fi lay faje mu am ay bagages yu am solo yoo xam ni euh, taalibe yi nga xam ni ñoo nekk bitim réew te nga xam ni wër nañ fépp ci àdduna euh, am ci koo xam ni moo ko yónnee bagages yi kon ngeen koy gis nii euh, bagage yi lii nag defe naa ni du gan ci kër gi parce que euh, saa su ne rek taalibe yi dañuy yónnee di yónnee di yónnee di yónnee kon taalibe yi aussi euh, xam naa ci kanam sëñ bi dina dala leen sant dina leen gërëm parce que sëñ Thierno Moule Sow le roi des Guinée rek Thierno Moule Sow bu Sénégal waaye kenn Moule Sow international dans le monde entier ba nga xam ni amul jullit amul chrétien amul góor amul jigéen fu ne rek nit a nga fa nekk yàkkamte ñëw fii ci Sénégal rawatina ñi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew euh, saa su ne ñuy jël ay marchandise di ko yónnee sëñ bi ak yeneen ak yeneen rek euh, li muy jàppale doomu aadama yi donc euh, sëñ bi euh, yal na la yàlla jàppale kenn amul sa pay parce que defe naa ni kër gi fii bés bu ne day day fees dell ci góor ak jigéen euh, muy lépp ci wàllum xewlu lépp sëñ bi mooy génne ci poosam bi leen ko jox ba pare di leen dimbali ci yeneen ak yeneen kon defe naa ni loolu am na solo kon. ñu fas yéene nag euh, ànd ak sama caméraman bi caméraman bi ñuy wax Pape Diagne sama wet al Seyni ñu fas yéene nag euh, jox kàddu gi euh, le roi des dîners sëñ Thierno Moule Sow mu wax ñu bagage yi nga xam ni moo ne ci biir suñu paree laaj ko xalaatam aussi ci taalibe nekk ci bitim réew kon sëñ Thierno Moule Sow la xalifa général des dîners le roi médecine traditionnelle the of the king ñu bàyyi la kàddu gi alhamdulilahi rabbil alamin aouzu billahi min ashaytaani rajim wala hawla wala quwata illa billahi al gannaaw ba ñu sante yàlla ñoo ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu àdduna bi yëpp di nuyu suma taalibe nekk ci àdduna bi partout dans le monde ñoo ngi nuyu waa TMS TV tele bu mag boobu noonu ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax macha allah Moustapha ñoo ngi lay nuyu bu baax macha allah di nuyu Alseeni di nuyu caméraman Pape Diagne di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ñu déglu ak ñun ñi seetaan le xalif général des jinne Thierno Moule Sow la king of the king le roi médecine traditionnelle du monde tey nag macha allah lii du ne bu leet fii ci kër gi dafa am suñu taalibe yi nga xamante ne ñoo nekk bitim réew mooy association Thierno Moule Sow famille Daarullahi bu international bi nga xamante ne Ousmane Samsi Samarouchi moo ko jiite ak tonton Sow Cheikh Oumar léegi nag suñu benn taalibe ndeysaan mag la sax euh, tonton tonton Amady Sow macha allah war xam naa ne war na làq lu ëpp soixante-dix ans euh, macha allah euh, mooy suñu taalibe moom moo ñu yónnee lii parce que gis na macha allah dañuy am tout le temps jafe-jafe ci ci ci ay baaful macha allah mu yónnee ñu baaful bu baax bi nii nga xamante ne baaful bi LG la maa ngi publicité sax baaful bi moo ngi jóge ba ba fari ba Paris France macha allah fa la jóge macha allah mu teg ko ci loxo. ci ci loxo Ousmane Samsi Samarouchi ba pare yónnee ñu tamit ay mbir yi nga xamante ne mu ci wëlis bi vraiment taalibe yi amuñu seen fay bu ñu gisee ne man Thierno Moule Sow seen sëriñ am na lu ma manqué rek maanaam dañu ma koy yónnee macha allah joxe addiya xamante ne nag taalibe moom addiya addiya dafa war taalibe seen sëriñ macha allah ñàkkul dara waaye nag dañuy ut barke sa ut sa barke sëriñ dafa am solo macha allah moom ngi jóge ba France daanaka am na trois mois ci yoon bi ak confinement bi ak yooyu alhamdulilah rabbil alamin barki démboo Ndiaye la egg baaful bi dinañu jàppale lool ci liggéey bi ndax pour tout le temps bu ñuy wax suñu baat day day day sonn ak jinne yi léegi nag taalibe yi xam ne ne bii baaful bu baax la original la LG ñu daal ñu koy yónnee macha allah en même temps kat yi saag bi tamit ñu yónnee ñu saag bi kaay ubbi ko ñu xool Alseyni ñu xool lan moo nekk ci saag bi d'abord. nekk taalibe sëñ nekk fii ci kër gi di def liggéey bu am solo. ay mouchoir la stage euh, la la. Euh, am solo. ak ay gants defe naa je crois. ay gants euh, ay mouchoir la. ay mouchoir am na yeneen aussi. ay ay yoo xam ne du yeneen yoo xam ne ñu ci biir. ay bagages yu am solo. macha allah. ñii daal xam naa sëñ Euh, xam naa ni bu ne yaa ngi leen di ñaanal. waaw waaye euh, da leen gën a ñaanal bu baax a baax rek. Mm. parce que du la première fois ñu def ko. waaw xam na ñeneen ba États-Unis ba Australie ba Italie. Mm. taalibe yi ñu koy def. Mm-hmm. te defe naa taalibe aussi amul lenn lu ñaan ci ci sëriñam. Mm-hmm. xam nañ que ni sax yii ñu la yónnee yëpp. ñàkkuloo ko. waaye dafa baax mu nekk loo xam ni. Euh, genre reconnaissance la parce que sëñ bi nga xam ni toujours mi ngi lay ñaanal waaw moo xam nga nekk ci réew mm-hmm. moo xam nga nekk ci bitim réew waaw di ñaanal waaw waaw kon sëñ bi génneel lépp kon macha allah macha la ngay sant taalibe yi rek ba dajji euh, dajji leen loolu jàppale ko jàppale ko mu dajj jàppale ko bi ngeen di gis macha allah macha allah jërëjëf jërëjëf tonton Amady. ndeysaan mag la kilifa la waaye ndeysaan suma taalibe la. gis ngeen man dama bëri ay taalibe mag. gis nga tonton soo Cheikh Oumar moom it boo xoolee ne mag la kilifa la. tonton àll jeey ci Amérique. macha allah gis ngeen. yàlla daf ma booleeg ay taalibe yi nga xamante ne ay xaafisul xuraan lañu ay mag lañu aussi. dañ maa gëm rek topp ma. macha allah gis ngeen li kenn ku ne même tonton soo Cheikh Oumar moom it ay mbiram a ngi ñëw yónnee na ma ay affaire mais egg seegul moo ngi ci yoon bi macha allah vraiment li dafa bari. Euh, ah, fa diis de ah jinne yi am nañ problème nag ah, jinne yi ah xalif <laughs> général de jinne ah. jinne yi de am nañ problème daa dëgg de dajul bu bu ñu paree léegi ñu tàmbali. parce que am na jinne yi nekk ci biti. macha allah ah ñu immigré ko ay jinne. Hmm. ah. kon Pape macha allah. Baful bii euh, lii moom defe naa ni est-ce na ah. Sénégal sax laa yor. ah ah man de yàgg naa di gis ay Baful. waaye dafa cher nag. bii de defe naa ni yemul rek ci Baful. waaye am na yeneen ay mbir. yoo xam ni 100 volts. waaw romb na Baful parce que bu ngeen xoolee fii ci kaw. Euh, ni mbir mi dippoo nii. Ah. Euh, lii defe naa ni am na yeneen mbir yoo xam ni euh, mi ngi ci ngeen koy xool fii ci ci caméra bi jàkkaarloo ak le khalife général des Djinné nga xam ni Thierno Moule Sow le khalife général des Djinné ay taalibe yu baax yu nekk Europe. ñoo ñoo ñoo ko ko ñoo ko ko yónnee. tonton Amady. tonton Amady Sow tonton Amady Sow waaw. Euh, moom moo yónnee lii. ndeysaan moo yónnee bagage yi. macha allah euh, vraiment tontu Amady kenn amul payam. waaw xam nañ que ni sëñ bi ñàkk ko. waaye euh, taalibe ak sëñ sëñ moom toujours day baax muy mu mu mu mu mu muy yónnee lu ñuy wax genre addiya. macha allah parce que defe naa ni sëñ bi boo nekkee bitim réew. mu lay aar. nekk ci sa ginnaaw nekk ci sa biti. di la defal loo xam ne aussi da lay ubbi yàlla du ubbi say xéewal. kon defe naa ni sëñ bi euh, loo ko defal rek mënoo koo fay donte am na ko sax waaye li ñuy wax ci tubaab bu reconnaissance maanaam woon ko ni ah euh, yaa ngi may gëstu de euh, mënuma laa fay waaye nag lii. Mm-hmm. maa ko teg ci sa loxo. dana sedd xolu sëñ bi. Mm-hmm. danaa tax aussi bu sëñ bi di la ñaanal ngay am fukk di di boo kon ne di ko def rek affaire yi day gën a multiplier wu dem ba ñaar fukk ba ba ba téeméer. macha allah kon defe naa nii euh, le le médecine traditionnelle internationale sëñ Thierno Moule Sow nga xam ne romb na frontières yi euh, dem fépp ci àdduna the king of the king ngeen gis euh, bii aussi moom la génne bii xam naa ni euh, moom it. kii dafa mel ni lu ñuy euh, nettoyer la. baax na trop. Hmm? nettoyer maquette yi tànk yi moo nekk ne aussi. léegi léegi ma ñëw teg euh, Moustapha. Hmm. Hmm, macha allah gis nga association bi. Euh, macha allah alhamdulilah rabbil alamin barki Dembo Ndiaye yónnee nañ ma trois cent cinquante mille. macha allah naana association bi dama ko tasoon formé waat ko. parce que dafa amoon ay défaillants yi ci nekkoon ñu mel ni amadu Amadou Amadou Diakhaté ma tas ko. formé waat ko macha allah barki Dembo Ndiaye yónnee nañ ma trois cent cinquante mille Ousmane Sam Sam Rouge yónnee na ma ñoom ak trois station bi ñu yónnee ma trois cent cinquante mille ndax dañ ko yeesalaat. macha allah ñoom tamit ñu jël deux cent cinquante mille moom Ousmane Sam si sama Rouge yi ak tonton son Cheikh Oumar. am na solo macha allah ñoom ñoo ngi ci Paris. Mm-hmm. ak galo galo soo moom moo ngi ci Angleterre. macha allah ak Youssoufa Moulé moom moo ngi ci Maroc. ñoom ñoo dajale deux cent cinquante mille. ñu ne yónnee nañ sëriñ bi trois cent cinquante mille waaye lii ñun ñeent dañuy def suñu addiyee ñun tamit kon vraiment di leen sant bu baax a baax mm-hmm. yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen association mu Moule Sow famille su ma nee mule mule yi rek maanaam ñëpp bu ma bu ma limee damay jum mm-hmm. ñu ne ci kër gi mm-hmm. su ma limee rek dinaa jum bu ma nee Ousmane wala tonton Sow rek wax naa kër gi ci kaw ba ci suuf kon maa ngi kontaan bu baax ci taalibe yi ndax lii kat seen sëriñ ñàkk ko waaye tamit lii dafa baax te nag naa la wax leen na gis nga association bi képp ku ci dugg soo amoon jafe-jafe da gis ne sa jafe-jafe day day dañ macha képp ku amoon problème soo duggee ci association bi sa problème day jeex moo tax nag ah taalibe yi dañuy góorgóorlu aussi di seddal suma xol ndax nag association bi am na ñetti jinne yi nga xamante ne ñoom ñoo ngi ci biir association bi mm-hmm. di surveiller association bi macha allahu ak jinne yi nga xamante ne aussi ñoo ngi fii waaye ñoo ngi ci association ba kon nag du association simple ah am na ñi nga xamante dañ naan man ba ma duggee ci association Thierno vraiment euh, am na ñi nga ne amuñu woon liggéey mm-hmm. euh, euh, lu mel ni Fatoumata Dieng mm-hmm. amul woon liggéey mais ba mu duggee ci association bi ci la am liggéey ak ñeneen ak ñeneen am na ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci association bi ñu mel ni ñoom ummi kii Aminata Sakho moom léegi nekkatu fa sax mm-hmm. moom ci boppam toog na ay xaw ma ñaata at France amul amul amul nationalité. Mhm. ba mu duggee ci association bi ci la am nationalité. macha allah am na tamit ki nga xamante ne dafa amoon problème ak euh, ak justice ñu waroon ko refoulé. Mhm. macha allah ba mu duggee ci association bi. Mhm. gars yi jàpp ko war ko refoulé. Euh, ba ñu demee ba ci digg tali bi seen oto bi paan. parce que seen oto bi paane macha allah ñu jël ko yóbbu ko ci justice yi. justice yi ko war a juger pour génne ko ci dëkk bi ñoom ñoo ko fexe rawale ko kon xam nga ne ascension bi dafa am solo. ba ci t-shirt yi gis naa ñu bëri fan yi ñu ngi ñëw fii. Mm. Euh, di laajte. Mm. parce que nee reñ daal gis nañ ci ay secret yu bëree bëri. Mm. mu mel ni association bi. Euh, li nga wax moo ci nekk. t-shirt yi aussi li nga wax moo ci nekk. ci loolu sax laa la bëggoon laaj sëñ bi parce que taalibe yi bëri nañ macha allah bitim réew. Euh, yaa ngi leen di yónnee ay ñaan ak lu ne ñu ngi egsi bu baax a baax ñu ngi koy gis seen xol sedd na waaye ñoom it euh, day baax euh, nga def benn tournée internationale parce que ñoom aussi doonte waxuñu ko soxla nañ ko lool benn tournée internationale boo xam ni danga koy def ci benn un mois wala 15 jours nga dem ba Amérique dem ba Maroc wër àdduna bi yëpp parce que Thierno Moule nekkul Thierno Moule Sénégal mais. àdduna yëpp ñoo la soxla fi ne nii loolu nag bëggoon naa aussi ci gàttal rek sëñ bi nga jox ñu ci xam naa ni xaw na xat naa wax ni sax bu ñu demee ba nga gën a féex euh, ci ay weer wala ci ay semaine euh, bu la bi maye taaliba yi aussi bëgg nañ nga dem nemmeeku leen bu fekkee ni une semaine la. macha allah barki Dembo Ndiaye rek. maa ngi ci waxtaan ak Ousmane Samsi Samarouchi. mu ne ma sëriñ bi ñun kat dañ laa soxla pour nga ñëw international euh, jamono jee maa ko maa ngi bëggoon ñëw mais ak confinement bi loolu la mais ci kattan suñu borom Euh, bu euh, avion yi commencé dem incha allah dinañ jàpp naka la ñuy ñëw bu ñu ñëwee bitim réew incha allah ñu def tournée parce que dañ ñoo soxla foofu vraiment am na taalibe yi fa nekk amuñu këyit vraiment bëgg nañ jëflante ak ñun mhm. waaye du ñu mën a ñëw léegi nag ñun moom macha allah suñu waaj nag du dem mhm. <laughs> li waaj mooy bari ndax nag fii gars yi duñ ñu bàyyi ah, suñu bëggee dem kër gi day fees gis nga ah, mbooloo bi xoolal ci caméra bi noonu jël ko noonu gis nga ñu ñaa ah, ko noo ngi ci caméra bi kër gi kër lekk lekk ba guddi waaw gis nga ko ak confinement bi ak coronavirus bi gis nga ñu ñaa ngi ñëw am na ñoo xam ne sax bu ñu toogee ba guddi dañuy obligé ñibbi yàlla mbooloo mi mbooloo du dem fu dara newul dëgg la maanaam liggéey bi nga xamante ne mhm. euh, def nga ko ay ataat mhm. nit ñi di ñëw dëgg dafa ne dëgg la fu dëgg nekkul dëgg la ah dëgg du mot at mhm. doo fa gisati kenn doo fa gisati picc lu mot mi ngi ci salle d'attente bi di xaar bu ne alseyni day oote ñi nga xam ne ñooy ñëw suba ak ñiy ñëw maanaam bés bu ne ak ñiy ñëw kon defe naa ne lii nekk ci liste bi ay at sax jeexalu ko. Mhm. foofu aussi xam naa ni euh, sëñ bi. sonn nga waaye euh, sonn sax euh, nekk ci askan bi jaamu yàlla la. kon defe naa ni yàlla suñu borom moo lay fay kenn amul sa pay parce que sa pay defe naa ni tey du xaalis parce que bu fekkee xaalis am nga ko façon teraanga mu ne am nga ko tey ci kaw suuf lépp luñ la a yónnee am nga ko ki nga xam ne day xëy di jàppale doomu aadama yi ci wàllu koppar di leen di jox ñuy lekk di naan kon kooku soxlaatul dara xanaa fi ne nii payu yàlla rek lañ lay lañ lay ñaanal waa jërëjëf euh, Moustapha sant suñu borom sant suñu borom bu baax ndax man suma lépp yàlla la ak yónnente bi man sama dund suma life yàlla la man Thierno Moule Sow lépp lu ma am suñu borom moo ma ko jox damay sant yàlla man du xaalis laay wut alhamdulilahi rabbil alamin li ma yàlla jox moo ëpp xaalis waaw li ma suñu borom jox moo ëpp xaalis man du man maay ut xaalis xaalis moo may wër mhm. man du ma ut xaalis xaalis moo may wër comme ni nga ko waxee macha allah lii nag teraanga la. ñàkkuñu ko mën nañ ko jëndal suñu bopp. ndax barki Dembo Ndiaye dem naa ba Sandaga. waxaale lii bëgg ko jënd xam naa lu muy jar dafa seer. maa ngi ànd ak sama sécurité waxaale ko bëgg ko jënd. mais gis nga ndekete taalibe bi moo ngi ci yoon bi pour indi ko. macha allah waxaale naa ko ba bëgg ko jënd. Mm-hmm. macha allah. far taalibe bi wax na ne moo ngi yónnee na moo tax jënduma ko kon man du xaalis laay ut mm-hmm. macha allah damay jàppale jaamu yàlla yi mm-hmm. macha allah waaye nag ci biir jàppale bi nag euh, kese Euh, lekkati kese naxuti bay ku bëgg dara da ngay def dara di sant suñu borom bu baax di julli ci yónnente bi man maay xaalis man du ma ut xaalis xaalis moom may wër man utuma xaalis man cerno <laughs> utuma xaalis ay jamono dama daan ne man bugguma xaalis ñu ne kii dafa dof mm-hmm. ma ne leen man soxlawuma xaalis man li ci ginnaaw xaalis laa soxla mooy lan xam-xam ndekete suñu borom gàcce na xam-xam ci man xaw ma ko mhm. wër naa ci àll bi dem fu ne di uti xam-xam ndekete li ma yor mhm. fi ma daan dem yëpp du ma seen moroom waaw ma ne man soxlawuma xaalis soxlawuma yële bu baax ma ne man soxlawuma yi xam nga ak jamono ji ak jamono ji nga ne bëggoo xaalis mhm. ñu ne kii dafa dof waaye dofu ma ne ma ne li ci ginnaaw xaalis laa bëgg tey suñu borom jox na ma ko. macha allah tey lu ma bëgg. Mm-hmm. mu ñëw lu ma xalaat mu ñëw. Mm-hmm. loolu nag ba adduna bi di tukki. ba kerew may sàngoo suuf. ci kattan suñu borom. di sant yàlla di julli ci yonente bi salaa salaam. Euh, di ñaanal ñëpp jàmm vraiment di kontaan ci taalibe yi. taalibe yi macha allah même suma yaay dañ koy yónnee addiya. macha allah Mariama Camara mm-hmm. saa su ne dañ koy yónnee xaalis. barki dem boo am na suma benn taal bi ñu wax kat yi bari mm-hmm. yónnee na ko cent mille francs te cent mille francs yi sax depuis ci koor gi la ko yónnee man gisuma message bi mm-hmm. barki dem njaay laa dugg ci message bi rek gis ma mën ne ko waa kat yi lii nag mu ne ma sëñ bi yoon lii ajaratu lañ ko yónnee mm-hmm. ma ne ko waa mais waxoo ma ko mu ne ma man kat dama ne après di nga ko gis parfois dañ may yónnee xaalis xaalis bi duma ma ko gis sax parce que du am temps y a pas de temps maanaam ñoo ngi ci jaamu yàlla yi di liggéey Euh, di sonn ngir jaamu yàlla ñun du xaalis la ñu ut. koppar ñun am nañ am nañu am nañu secret koppar. ñun du xaalis la ñu ut. am nañu secret koppar am nañu secret bi am mm. nañ lu indi. ñoo ngi am ñoo ngi sant ñun ñooy xaalis. macha waaw di sant suñu borom ndax boo yoree jinne mm. macha allah. Mm. <laughs> jeexaloo dara. bu yor jinne nga xamante ne loo bëgg ñu indil la. Mm-hmm. jeexalul dara. waaw di sant yàlla nag di julli ci yonente bi di sant bu baax nag. di di gën a tuub di gën a jéggalu kanamu suñu borom man ab jaam laa bu gën a xeebu ci jaam ci kanamu suñu borom am na man suma ma lépp allahu la muhammad su ma bët allahu muhammad la sama làmmiñ sama lépp sama lépp alxuraan la vraiment di kontaan nag di ñaanal parce que gars yaa ngi ci biti mhm. ñu tënk rek mën a wax a gars yi parce que y en pas de temps aussi mhm. vraiment di ñaanal ñëpp jàmm kontaan naa ci taalibe yi addiyee ñoo ngi jóge fu ne gars yaa ngi yónnee ay cent mille francs ay cinquante mille ay cinq cent mille ay un million addiya ñii dañ may ko dañuy bëgg ci li may def barki Dembo Ndiaye tamit sama benn taal bu nekk Amérique cinquante mille la yónnee benn jarbaatam policier la. Mhm. mu ne ko yóbbul ma lii ci Thierno Moule. mu ñëw fekkuma mu ñëw fekkuma fi mu ne ko joxal ma ko Alseni. Mhm. kon macha allah te police yu yëmbal. waaw police yu ñoo ngi nuyu waa police yëmbal di nuyu tamit aussi police yu euh, Parcelles Assainies. Mhm. macha allah Thierno Diop commissaire ñoo ngi koy nuyu. di nuyu tamit commandant Samb. di nuyu ñëpp ndax man. jiitu réew mi aussi mi ngi lay président Macky Sall ñoo ngi koy nuyu. di nuyu gouvernement bi ak kilifa diine yi tamit ñoom ngi may bàyyi xel maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ñaanal jàmm waa ñoo ngi koy nuyu moom it di ko ñaanal jàmm man maa ngi fii ngir jàppale askan bi lii ma ma yàlla jox lii yàlla daf moo ko jox pour rek ma jàppale jaam ñi mm-hmm. mu neex ma dama koy def mu naqari ma dama koy def ndax yàlla moo ko moo ko moo ko def ci man moo ko def sama sama ndodd mm-hmm. di sant yàlla di leen nuyu yéen ñëpp di leen ñaanal jàmm su ko defee nag waa TMS moom dañ leen di ñaanal jàmm TMS ca kaw ca kanam ci lu baax mm-hmm. ci kàttan suñu borom. jërë ngeen jëf macha allah. kon ñu ngi lay ñaanal bu baax a baax a baax. yàlla dafa gudd fan. allah wér gi yaram. jërëjëf gis nañ ñi ngay jàppale askanu Sénégal ak askanu aduna. jërëjëf kon jërëjëf sëñ bi ñu ngi lay santaat bu baax a baax. jërëjëf Moustapha jërëjëf macha allah jërëjëf TMS TV jërë ngeen jëf merci beaucoup.